moo a invité man ni duma bàyyi kenn ci njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick su may dem Fass tam ziyaar ji Cheikh na Tidiane yi yéen ñëpp laay yóbbu moo tax bañ fay dem muy Khalifa muy Pape Makhtar muy euh, Papa Youssoufa Diop bu Alhaji Moustapha Diop dafa nekk ci mission moo tax teewul bu yaay Mari Ngom mu di Serigne Mouhamadul Mansour mi euh, Jamil mu di docteur Mouhamadul Bachir Ngom doomu bàyyi alxaaji Lamine Ngom bërki démb la ñu jógee ci conférence am wutu ca xalifa bi ñoom ñëpp ñoo taxaw partout fu ñu dem ci Maroc kenn ci ñoom ba ci xalifaloo jël nga discours boo xam ni da nga ko wax ci ndigalu xalifa bi ci turu xalifa bi ak turu xadra bi mu nekk partage bu rafet ci rôle yi ñu doon joué ci responsabilité te mbir yi noonu la demee fii yéen ñëpp cadre yu valable ngeen fa tabaarakallah allahuma la udur waaye ba ngeen ko amee ba noppitam gis nañu ni lu ñu partagé teg ko ci cofeel ak yërmande ak sutura ak respe ak mbëggeel léppay rafet te loolu lañuy ñaan mu sax ñu ànd ceeg suñu kilifa yëpp comme niñ ko mës di defee ci keppaaru kilifa yëpp yal na yàlla yokk leen leer noonu la ñu fas yéene ànd ak xalifa bi Cheikh Sidi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour ànd ak rakkam yu baax yi di Serigne Maodo ak Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ànd koog góor ñeeg jigéen ñi nag laa ci bopp yemale ndax sa maam yow soo naka la alxaaji Abdul Aziz sa baay sa baay sa maam avant mu dem wuy ji boromam doon na wax Pape Mokhtar Kébé ak ñun ñëpp maa ngi leen di dénk jigéen ñi na ngeen yërëm jigéen ñi na ngeen ormal jigéen ñi na ngeen suturaal jigéen ñi te loolu yëpp dañ ñoom ñëpp dañ ko jàng ci Cheikh Seydil Hadji Malick ndax li tax ma wax ko soxna Maguette Sarr di doomu soxna Fat Si mu Cheikh Al Hadj Malick soxna Maguette Sarr yaakaar naa ni mooy wéy juru Al Hadj Amar Si Wele mooy wéy juru Al Hadj Seydou Wele ak soxna Zeynabu Wele ak soxna Ndey Wele ak ñeneen ci njaboot gi nee nañu bés dañu dégg kàddoom ndax wéy juram soxna Fatou Si mi ngi wujji borom 1916 loolu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Al Amin moom ma ko wax ca Maroc fekk ñu tukki fa ci tukki yi mu daan dem ci ay mission ci koor gi ma di bi ndax fekke ngeen sa jamonoy bàjjen soxna fat munima eh soxna fat si dafa teel a dem xanaa xamoon ni mook Seydi Ahmed si rawanteewuñu lu dul ay weer yu néew bi Seydi Ahmed si demee ca guerre ba première guerre mondiale soxna fat si dañ ciy teg lu néew rek bi gannaaw bi ñu déggee demuk Seydi Ahmed soxna dem soxna fa màggat Sarr moom mu nag doomu fat ba muy jooy ci kër ga yal na yàlla yërëm dégg naa Cheikh Seydi Aboubacar si ne waaw xale boobu jooñe kan la ñu ne ko ah Baye soxna Maguette Sall de sa jarbaat bii mu ni Maguette lu mu joot nañ ko nax wala man Babacar si ma génn kër gi ba ngeen nax ko defal ko la mu bëgg ba mu noppi donte a xale la may soog a dellu si ndax man xajoo ma nekk ci kër surtout Cheikh El Hadji di fa jooy te xaw ma lu muy jooy Cheikh ba Aboubacar si ma waxoon loolu pour wax la yërmande góor bu tedd googu. mbaaxam tabeem xolam bu yaatu ba ci xale bu ndaw nga xam ni tey wutal nañ leen fu ñu naan UNICEF ak leneen ñoom fekk na UNICEF yàlla dugal na ko seen xol waaw ak xam ak doomu aadama ba ci xale boo xam ni liir la buy soog judd loolu mooy kookoy Cheikh Seydi Aboubacar Sy moo tax turandoom bii ji di Cheikh Seydi Aboubacar Sy ba muy dem Maroc ñëpp la yóbbu noonu itam la la ñuy waxe ni yéen ñëpp jëmmu Cheikh Al Hadj laa leen di xoole ku ci nekk ci yéen bëgg naa su ma la tegee ba gis ni Cheikh Al Hadj laa gis Cheikh Seydi Aboubacar laa gis Seydi Ahmed si laa gis Al Hadj Mansour laa gis Al Hadj Habib laa gis sa mbàjjen Astu si laa gis sa mbàjjen Farsi laa gis sa mbàjjen Umu Kulsum ñeneen laa gis sa mbàjjen Nafisatu laa gis sa mbàjj sa mbàyyi Abdoul Aziz laa gis ak bàyyi Mouhamadul Habib noonu la sëñ Babacar Mouhamadul Mansour di wax moo tax ñun ñëpp ñu war a taxaw nag ànd ci liggéey boobu

wundaloon daara ji ci jamono yi maam alxaaji Malick ak maam yu baax yi mu àndaloon ak baay yu baax yi mu àndaloon loolu dañ koy rafaatal dekkal ko taxawal ko mu am renaissance intellectuelle culturelle et culturelle renaissance civique